dafa am benn thème bu ma waxtaanee ca Mbàkke keroog xalif général des murit sunu baay bu baax bi yónnee na ma ndaw ni ma ba boo noppee ci waxtaan wi dinga nga jaar si Touba ma ni ko comme Serigne Cheikh def la digoon ngan ma ne ko damay bañ jëkkantu moo tax ma bëgg rek ba bis buy ñëw ma ànd ak moom mooy gën a rafet mais keroog la traité comme mooy li ñoo tudde ci arab al fitnatul muqaddasa al fitnatul muqaddasa buñ ko dee firi ci wàllu tubaab mooy le nécessaire ñun dañu defandi rekk lu ne jàmm jàmm mu saf suukar mu neex déedéet kon bu doon lool la rek yàlla du wax yonent bi mu jihaad et pourtant jihaad li Serigne Cheikh wax ni jihaad firiwul xeex fayu lay firi nee na mooy ku ñu yàgga tooñ ba tooñ nga ëpp yàlla xëy nag ni la fayul looluy jihaat bu ko defee kon nag dégg naa mu ni sëriñ Babacar Sy nee na tooñ bu dul dakk baaxul waaye muñ gu dul dakkit baaxul waaw bu ci ne dafa am limitam waaw la patience a ses limites li sabri xudud bu ko defee kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko wax mu génn màkk bi mu génnee makk dem gàddaay Medina ñuy tabax jàkkam ma nga sol froc ba mu sol jël kaalaam laxas ko ci boppam ma nga ñàkk tooy xepp nekk ca biir rang ba nit ñi di awante mool yi moom it muy jël ci mool yi di joxe pour ñu teg ci kaw mur ñu di ko booleeg seen way yooyu le inna al ulaha bagaw alayna ida araadu fitnatan abayna mel ni lu koy def genre taasu yonent baa nga ca ànd ak ñoom di way waya ak baatu nubuwaam boobule waaw waaw inna al ulaha bagaw araadu fitnatan abayna mu boole di joxe mool yi maanaam wax mooy am na ñoo xam ni fitna la ñuy wut ci ñun ma di leen yëgal ni nag duñ ko am ci ñun naka lañ ko wax ba noppi rek la première chose bi yàlla njëkk a def mooy mu indi leen xare ba dara pour wan leen ni leen fitna bi ngeen di daw jaru ko am na ñoo xam ni par force la ngeen defante ñoom yonent bi jël ay disposition ay waa këram jël seeni disposition ñu doon dajejeeg waa Makka ak seen réewande yooyu ndax ñoom dafa bokkoon ci seen façon bu ñuy xeex dañ naan lay indil sama nawle am na ku nga xam ni bi mu génnee ci chefu Quraysh yi abu ubaydat ibn al génn taxaw ci kanamam def ni yonent bi indil kuy sunu nawle parce que kii du sunu nawle te yonent bi nawle xamu ko ci deret ci pas-pas la ko xam mu ne ali ibnu abi talib génnal waaw ali abi talib génnal daggate nit ka chef ba waaw ba ñuy for ay cëram ci suuf waaw chefu Quraysh yépp ñu rey leen ci bés bi Bilal Bilal mi ngeen di dégg moom rekk a ca nekkoon nit ku ñuul waaw bi ko Abu Sufyaan njëkkee fekk mu toog ci rangu jullit yi ñu julli ba noppi te mu ñëw di nuyoo ku mu nuyu doo ko fàlle te booba mooy meeru màkk mais booba ñi yonent bi am gisatuñu borom daraja li ñu gis rekk mooy ku fi yàlla bàyyi muy nuyoo di nuyoo ku mu nuyu doo ko fàlle ba mu yegsi ci bilaal ni ko waaw bilaal yow naka mu mu ne ko ci lan mu ne ko woyafal gi ma ñii di woyafal yow xanaa doo ci bokk mu ni ko lu tax mu ni ko jaam nga woon ca ñun mu ni ko waaye duma woon seen jaam jaamu ki ci kaw laa sunu boroom boobu la nekkoon jaamam te moom ma teg fii tey waaw ba tax na dafa am lu nga xam ni boo ko dawee jaru ko l'essentiel mooy bul def lu yàlla d'accordul bul def lu la kilifa joxul ndigal ndax am na lu nga xam ni jaasi du ko réglé paaka du ko réglé fetel du ko réglé yàlla ni kun rek fayakuun moo koy réglé waaw ba tax na kon nag ñun on s'en fout sunu waxtoo jotagul rek gis nga ba ci bëccëg ba ci bëccëg fekk 48 heures ci gannaaw nee nañu ma ngeen bàyyi xel seen cérémonie bi parce que bëgg nañu yebal ay nit pour ñu infiltrer leen pour créer ay événement ca ca fa ngeen nekk événement yi commencé woon na fii ci bunt bi mais sécurité bi ñoo leen neutraliser bu ko defee kon nag leen ci seen tarbiya kontine ci seen daara xam seen kilifa mooy kan am na loo xam ni bis bu waxtoom jotee kenn ku ne di ko yëg ci sa xol yëg ko ci sa xel waaye mën nañ caa bañ a yegg nag waaw ndax yàlla mën na régler li muy régler te boobu coono du ñu ci fekk ndax wakafa allahu almuminina alqital góor gi moo ko waxoon waaw ko defee kon nag ndeysaan xam naa maa ngi doon dajale sax tuuti xaalis wax capitaine ne ko ñu dajale tuuti dama dégg ñu ne Ami Njaay dañu dañu taal këram nga ca ñii bi waaw ma bëggoon koo wutal rekk lu mu yalwaane waaw waaw waaw ko defee ba beneen nag waaw bu beneeneen ñu xam luy xew lan lay doon waaw xëy na dina am ñu ne ah, anniversaire bi moom pourtant waxuma dara waaw ndax li may wax ñëwagul bis bu jotee ngeen xam ni li may wax ñëwagul waaw moo tax li capitaine wax rek boo fi ne moom day daanu waaw dafay daanu tabaarakallaahu buy jël kàddu sax damay tiit waaw ndax li muy wax du xaj fii te li muy wax noonu la amee te noonu la ko gëmee waaw yàlla ak barke turandoom mam Babacar bii fa tabaarakallaahu clavier la yoroon bégal na ci nit ñi et pourtant barki la la mujj wax ak moom kon nag ngeen xam ni buñ dee fo sax yow bàyyi leen xel ndax mag ñi teg wu ñu seen loxo ci ñoom mu mel ni itam soxna Fatima ci discours bi mu wax mu mënula la wax te jooyul waaw naka la tudd capitaine rek commencé jooy ndax dafa sore ci moom waaw maam Babacar nag mooy doom ji waaw moo mas nekk yaayam waaw Pape Cheikh nag mooy xarit bi waaw wa tabaarakallaahu seeni baay rekk a fi toog ak seeni yaay mag ñu baax ak njaboot yu baax ñépp jàpp nañ ci bés bi kenn desu mu mel ni bokk yi doon présenté wax nañu liste yëpp soxna Fatima ak seen groupe di sant ñépp waaye dañu ma wax naa wax capitaine bu jógee am na groupe bu tudd waa génie en herbe ñeenti at a ngi nii bu bés bi jotee liñ may yónnee kenn du xam nu mu toll wax ni ñoo koy def seen cadeau ci bés bi waaw ma bëggoon la ko seddeel bu ma jógee jox la seen cordone nga santal ma leen ndax ñoo ko yow ñë bokk génération waaw mu mel ni kon nag lu nit di waxate amu fi li war rafet rafet na li war a am am na tudd nañu léegi ñoom imam Cheikh Mbeng mook imam Moussa Gueye ak imam Cheikh Niang ak sunu wëllëre bopp Abdul Wahab Sakho lu fi nit di waxati presque amu fi bu ko defee rekk ñuy bàyyi xel yu bare xëy na moom nit ñi bu ñu tiitee rekk ñu ngay teg maam Abdou Aziz ñu ngay teg sëriñ Mansour ñu ngay teg sëriñ Abdou ku ne ku ne ku ñu xamoon ñu ngay teg sa waxtaan yi woon ca ñaari fukki at ma di leen yëgal ni naaju démb du wowal potu tey ma wax leen ko waaw bu ngeen tegoon ñëpp te ñun ñu décider li ñu décider kenn mënu ci dara ma wax leen ko waaw su ko defee kon nag li ci am solo rekk mooy li ma dégg góor gi wax ko ci 2STV yi fan yii yëpp ñu ngi teg góor gi li mu wax ni Cheikh Al Hadj nee na bala ngay cité li ci texte yi interroger phénomène yi ba noppi parce que boo interroger wul phénomène yi la ngay lire ci texte yi moo xam bu alquran la moo xam beneen texte la du jariñ tus waaw mu ni te phénomène yi nag ñaari ci ëpp doole mooy espace ak temps waaw az-zaman wal makan